Sénégal moom léegi yaaxu na de yaaxu na carrément utilisation drogue bi bëri na moo tax overdose bi tamit bëri na. Euh, récemment rek temps ne am na benn fii bu si dee si appartement. Ngor ndax drogue ko de après dafa overdose. drogue bi mi ngi circuler genre certes nag am na loo xam ni day jaar jàll mais am na tamit luy des si dëkk bi. frontières yi sécurité bi si war pour nga xamante ni képp wala ba contrôle bi war. moo maanaam bu doon bu doon 100 pour cent la nekkul 100 pour cent peut-être ay 70 pour cent 75 pour cent wala wala 50 pour cent parce que bu doon dëkk bi frontières yi ñu ngi ci doon ñu ngi doon am benn vigilance bi amaana peut-être du ñu té waa douane du ñu du ñu am yenn yenn yenn quantité de de de drogue yi ci biir ci biir dëkk bi. il y a quelques années sorul noonu la plaque tournante de la drogue dure c'était la Guinée équatoriale. buntu boobu c'est fermé maintenant et euh, depuis euh, les événements de Côte d'Ivoire euh, cette plaque tournante elle s'est déplacée maintenant c'est ici au Sénégal mais presque chaque semaine euh, nga dégg ñu ne euh, saisi record mais record ba kañ gouvernement bi li ko mooy gën a dooleel force yooyu nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy euh, traqué ñooñu douane également Euh, mu gën a góorlu si si si wàllu boobu mais également ñu ngi koy félicité parce que euh, drogue bi yàgg na dugg Sénégal mais tey jii wane nañ ni am am na taxawaay bi mu si am euh, ba mën résoudre problème boobu.